sama gaay mbay lañu àndal daan seede leen loolo ay kër daan nga acci di lim ni alaji fa mbay lañu àndal daan seede leen loolo ay kër daan nga tànn bi di si Cheikh Sall bay la am dol daa seede leen lool bay la ñu am dol daa aci digli ni waa jaayeen bay la ñu am dol daa seede leen lool bay nañu àndal daan ko séedee xalifa yi yaay dama jaay dundal na diine ji dundal nga diine ji maam bay dundal nga diine ji maam bay dundal nga diine ji maam bay dundal nga diine Mbaye dundal nga ji Maam Mbaye dundal nga diine ji Maam Mbaye laa yoo dund bi lay daanaka seede leen loolu. seede Abubakar daana seede loolu. xalifa yi ay dama jaay yàlla ko jox ma ya. baydaat yàlla ko jox ma ya. baydaat yàlla ko jox ma ya. baydaat yàlla ko jox ma ya. baydaat yeneen bi fat ko ci xolam. baydaat Seexu Tijaan dégg ko góoram. daanaka seede leen loolu. askelo gërëm daan xalifa di gay jaay xalifa di gay na di gay na jaay xalifa di gay na jaay ku ko merlu ci dig Seydi Aboubacar daan na Seydi xalifa yaay dafa jaay lëndëk lëndëm ba ñu booloo lëndëk lëndëm ba ñu booloo lëndëk lëndëm